miya maqaama la bu muy haskan ci maru hmm. arabi na li ñu xam hmm. mooy banoo mar banoo marwin ñu ngi bokk ci ñi nay ci arabi loolu de dañ ko de wax waaw ñoom de moom ñu ngi bokk ci ñi gën a hmm. fiis de waaw bañ leen xamee ba tey de mu ñu dimbalante dara de. Mm. ñoom mu neen duñ dimbalante. Mm. duñ dimbalante kenn itam. Mm. mustatrab mm. mu ne benn Omar ñooy bokk de ya yàpp ci benn cin mm. kenn ku ne day jël buum tagg takk ko ci suuf bi moom mm. ndax ba muy ñor lee ba ñor di dara du dara du def dara kenn maanaam kenn kenn du yóbbuwaale daraam ma suñ ca paree ñaami dañ koy nattoo noonu rek ndax rek ne kenn man <laughs> mu ñor sa morom dara si mustatrab léegi nag maqaama bi maqaama marwiya la abu zaydin dem na fa xëy na dëkk ba mel moom daa soog nga na xaadi ji a ah wax joo ñanga ñanga wax yi dëgg rek ah, ba xaadi ji xamul nam koy def rek a ah, mu ko mu dem moom daal mooy maqaama maqaama bi amul jayaase amul dara wax yi dëgg rek moo ci ne ak aye nay rek ak wane nu nay bone rek <laughs> moo ci nekk daal xëy ba xam niñ mel daal mu ne xakkaa nettali na alxaaris xaaris ibnu hammaam xaal mu ne ubbi ba soppaloo na ilaye jëm ci man hmm. musaad waxtu wa doxee xadami sama ndëgu hmm. wa nafasa te tëfli hmm. sama xalima kinaaya la ci jot génn bi ma mësooree ba toll ci sama bopp samay liberté di dem ci suma jubluwaay dama soppoon ana ana taxida ba ma jàppat al adaba ilmul adab siratan muy yoon man di dama siifaroon xelmul adab ndax ngëneel yi ma ko xamal taxoon na ma siifar ko wala ixtibaasa ma jàpp juumu min hu ci adab nujaatan muy forluwaay xëy na nit ñaa ngee dox di wuti lu ne waaye boo man foo ma gis xam-xam rek laa may ana ba ma jàppat al adaba adab siraatan mu yoon muy soobu waaye yoonu may soobu mm. wala xibaar sama jàpp juumu min wu ci aada lu mm. jaxatan muy farluwaay mm. so kontu nekkoon naa una xibu di gëstu xan axbaarihi ci ay xibaaram xaaga bind wala xan axbaarihi ci ay fóodéem su fekkee xaaga bind boo bindee xaa nag mu axbaarihi wa ak wuy denc mbóotam mm. ko ma fekk daal mm. ab sabab sabab xam-xam mm. moom laa bëgg a xam fu mu koy xamee wala ab borom xam-xam laa dégg da ko seeti ba xam lu ma faa jëlee ab sabab sabab laa dégg gëstu ba xam fu mu koy xamee wala borom xam-xam laa di laa dégg da ko seeti ba xam lu may xamee ci moom ko ma fekk daal loolu mooy sama mbir so kontu nekkoon naa una xibu di gëstu an axbaarihi ci xebaaram wa xasanati asraarihi ak way denci mbootam wa isa bu ma fekkee minhum ci ñi denci mbooti adab buxyatal multamisi càkkutéefal aji sàkku wajid watal muxtabisi tey xalu aji juumu sadattu ma takk yeddi sama loxo bi xarsihi ci dëhalam dëgalam wasan saltu masa ko wàcce min hu ci moom <coughs> sa kaata kan si yaa kay ndàmb mm. saa su ma doxee mm. ba gis koo xam ne ci borom xam-xam yi la bokk rek mm. danaa fexe ànd ak moom rafetal àndooga ba jëriñu ca xam-xamam ndax li ma bëgg laa gëm moo ma ñor daal bind la moom bind la de wa isa alfaytu bu ma fekkee minhum ci ñoom mooy xasanatu asaarin adabi boo yatal multamisi càkku téefal aji sàkku wajid watal muqtabisi ak xalu aju juumu wala ngànjeg aju juumu ku bëgg leer sadattu ma takk yeddi sama loxo bi xasihi ci dëggalam damay ngëb ci dëggalam damay langaamu ci moom wattan saltu ma sàkko wàcce min hu ci moom sa kaata kansihi asakaay ndàmbam xalaat ni ànd ak man nag lam alqa dajeexuma ka soroji yi mel ni abu seydin a soroji yi fii xasaarati ci bëri ndox ay niir mooy ay maalumaat yu yàq santul istilan wa wadan hinaa ak teg gorxom moo de an nuq bi ci barabu ràmm ay góom lay do yoo xam ne gëlëm da koy xame muy doon góom yu ne ci biir de métti te du bënn suñ koy faj mm. dañu jël godron teg ko ci kaw yaram bi mm. ci fi tolloo góom bi mm. dana mën a wér loolu nag ku xam feebar bi dëgg dëgg dëgg mën a faj moo ko man a nga xam ne yow boo tegee rek dana tolloo ak góom bi mu ne Abu Seydin nag ku yaatoo ni moom ay xam-xam ak ku ko dàqa xeete ak ku ko dàqa dindi lënt man xam alaa ni ànd man lam alqa dajeeguma ka Saroji yi ku mel ni Abu Saydin as-Saroji fi xasaarati suhubi ci bëri ndox ak ay niir mooy sanatul ibtilan yaatu xam-xam woo doon ni naa ak te godorom moo de moo wax de an nuq bi ci barabi ràmm mooy ràññi ci jëriñi illa annahu ndare moom kaana nekkoon na mu as yara di gëna a a dox minal masali ci léebu ndax ku ne koy sadd ci mbiram mbir mu ne ci lañ koy sadd waaran te gën a gaaw minal xamari ci weer fi nuqali ji toxolu waaye nag nit la koo xam ne toogut kenn foo ko fekk tayit bul foog ne boo ëllëgee fa nga koy fekk de weer yi foo ko fekk tey boo ëllëgee doo ko fekk moo gën a yomb toxolu ku ne manaasil li muy am da ko dox diiru weer mansil bu ne benn fan rek ci am kon weer foo ko fekk tey bu ëllëgaa du fa bu ëllëg sax du fa fekk ndege moo daqaatu xolu weer loolu daal xam naa mooy gàllankooram xëy na mooy gàllaju gémmiñ gi maa kaana ahwaja sal kamaali ila nafsin yuwaqihi min al ayni mu ne xam na noo ku sa law manki bu laa fegal gémmiñ a baax na ci yow di xam na noo ku ko matee ah manqué gu lay fegal gémmiñ ah baax na ci yow di mm. wala manqué gu lay fegal bët mm. ah baax na ci yow di mm. ah ma kaana ahwaja sal kamaali maa lëf lu màgg ahwaja haajoloona kaana gi saayir la sal kamaali borom ak ila naqasin jëm ci wàññi goo wàññeeku goo xam ne yuwaqihi moo koy fegal minal ayni ci ci lor ak bët ma kaana dal kamaali ila naqsin yuwaqihi minal ayni xëy na boog mën a dox gi loolu loolu illaa annahu ndare naka moom kaana nekkoon na mu asyara di gën a mën a dox minal masari ci léebu waasana te gën a gaaw minal xamari ci weer fi nuqali ci toxalu wa kuntu nekkoon naa arxabu di xemem fil ixtiraabi ci tumaranke waa tax di bu temay neexlu asafara tukki alladi tukki mi nga xam ne huwa moom xidaatun dogin la min xasaabi ci mbugal li hawa mulaqaatihi ngir sopp dajeeg moom wastihsaan maqaamaatihi ak rafetlu ay maqaamam nimse gumay nimse dajeeg moom mu de kuy dox daan na ma ci may génn de dox ma it ndax ci dox bi dajeeg ku ni moom ndax lee dox danay waral dajee ak ku baax a baax mm. dajeeg moom wala ku ni moom mm. taxarrab anil awtaani mm. fi talabil ola wa saafir fa bil asfaari xamsu fawaidi tafarruju hammin wa iktisaabu maisatin wa ilmun wa aadaabun wa suhbatu majidi yëpp waaye du safari ci la bokk mm. loolu moo taxoot ma daan génn di doxi léeg mm. wa kuntu nekkoon naa li hawa mulaqaatihi ngir sopp ko dajeeg moom mm. waxti saani maqaamaatihi ak rafetlu ay maqaamaam arxabu di xemem fil ixtiraabi ci tumaranke waastadibu tamay neexlu asafara tukki alladi tukki mi nga xam ne huwa moom qinaatun dogit la min al ci mbugal mm-hmm. ndax lool la yonent bi wax mm-hmm. mu ne assabaru qinaatun min al mm-hmm. yamna ahadukum nawmahu wa taamahu wa sharaba wa ida qada ahadukum nahimahu falyarja wala nahamahu mu ne tukki dogitu mbugal la dana lay tee nelaw ci heure boo ne soxla nga nelaw tee la ci heure boo ne soxla nga ca tere la naan ci heure boo xam mm. kon booy tukki bu sa aajo fajo ba mm. ngay dëpp mm. su ko defee nag mbir moo koy waral nit yàlla yi tukki ndëg def wëreelu nii rek wëreelu ku ñàkk liggéey de bu cang-cang nii rek mel ni kuy permenaatu nii rek loolu moom daanu tax ñoom ñuy tukki rek di tukki di wëreelu yëfi aw yëfi cang-cang nii rek yu fi perménaatul nii rek mm. dama tax ñuy tukki dafa am lu leen daan tax a tukki mm. dégg ak nit ak yàlla mm. barkelu ci moom siyaare ku ngir yàlla daan na leen tax a tukki xam ay bokk dem fa jokkaleen loolu itam daan na leen tax a du tax a tukki wala génn gëstu ji xam-xam daan na leen tax a tukki wala xam ku ñu xameel xàq bëgg wàccoog moom ci jox ko la moom mm. wala jéggalu ko mm. daan leen tax tukki mm. wala boo xelaat ci kéemaani kawnu bi ndax nga a dollee ko xam-xam ci sa diggante yàlla loolu itam daan leen tax a tukki jigéen bu baax bu ñu ko daan wax mu ne góor gi daf leen daan wax boo moom bu ñu dalee ci sa bopp rek jaru génn wala boog wala boog wala boog nëbbu jigéen bu baax baax wala haji mag wala siyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. a mm. mm. mazhabuhum fi jawlatil buldaani siyaaratu suyuuxi wal ixwaani mazhabuhum fi jawlatil buldaani siyaaratu suyuuxi wal ixwaani summa iqtibaasul ilmi wal aasaari aw raddi zulmin aw lil ixtibaari aw lil xumuli aw li nafil jaahi mu ngi tegee gis nga ci kaw gis nga ko ci kaw sa jaral noonu sa kii bi la tegee rek ci téere yi ci buntu bi noonu mazhabuhum fi jawlatil buldaani mu mm. ne lii mazhabu ahlillahi mm. te mooy taalibe yeeg ñëw seen yoon siyaaratu mm. suyuuxi wal ixwaani selmu baax baax su maqtibaasul ilmi wal aasaari wala sàkku xam-xam juumu xam-xam aw raddi zulmin wala delloo tooñ xaqi jàmbur aw lil ixtibaari wala ngir xalam wala settantal aw lil xumóoli walla ngir jéem a fay mm. sa ha gën a fu sori mm. foo xam ne yu bëri tax na mën a toog ko fi ndég ciwte mm. te am na yoo bëgg ba léegi nga ben benn bis ne yereng rek dem foo xam ne kenn xamee wala fa su ko defee li bëgg a nga mën ko sàkku loolu daan na xeen nit yàlla yi ci ñu génn dem waaw ñu bëri xam nañ la fii ñu bëri fonk nañ la fii ñu ngi laa teg ñu ngi laa teg fii te am na yoo xam ne yow ni fi te demee mooy pour nga doon te nga war a doon war naa ñëw te ñëwagul mm. te buy fii rek nag te mm. diggante nit ñi àgg na fu xam ne man mm. ngaa gàllankooru ci sàkku ko nga xëy benn bis ne yarang rek def fu xam ne kenn du la xam sen bu baax a baax selum bu baax a baax ay mari si daa nga wax doon ni ne fa ne ci Mm. xawli nafil jaahi mm. wala bëgg a dund jeem ak nit ñi mm. waaw yoo xam nañ la foo xaw foo xaw rek ñu dara jàll foo xaw rek ñu dara jàll te lu bu la lool mën naa def ci yow ne ak nit nga ci ñi loolu tax la fee joxe ko def boo xam awli rasuli wala siyaare yonent bi mm. awli baytillahi wala haji makka mm. yële de moo daan tax mm. gaa ñi de tukki waaye de tukki li mu jërra di tanazzul yi rek man damay xel mi naatu rek ko façon bu la cang-cang waaye loolu yëfi bu amul liggéey la loolu yëfi bu amul toog rek loolu cang-cang rek yëfi bu amul liggéey la dégg nga hmm. waa temps bi bu tamay neex lu asafara tukki hmm. alladi tukki mi nga xam ne huwa mu qinaatun dogit la minan asabi ci mbugal hmm. falamma tata waxtu bu ma sànnee ko ila marwa jëm ci dëkk bu ñuy wax marwa dëkk bu maga a mag la xam ne ay dëkk yu mag ci xuraasaan la bokk mooy fi maamoon tànnoon muy barabu xilaafaam wala xarwa te déet kéemaan da ci nekk hmm. ndax booy dox fu ne ngay dem hmm. ba ma demee ba àgg marwa hmm. basara nii bégalee na ma bi mal xaahu ci dajeeg abu saydin sajru tayri jaaji njanaaw dama def loolu ñuy wax sajru tayri yaakaaree ci ne danaa daje ak abu saydin sajru tayri arab yi dañ ko daan def waaye l'islam bugg ko nag mooy da ngay teel a xëy rek soo na mee taa boo xam ne picc yi génn guñ mm. nga àgg ci tàggam picc fëkk ko bu baax mm. ba bi ci nekk génn mm. génne xaw sa booru ndeyjoor nga ne affaire bi dana dox su génne xaw sa booru càmmooy nga ne affaire bi du baax loolu sajru tayri loolu mooy sajru tayri arab yi dañ ko daan def ci njëkk lislaam waaye daganul seen bu baax a baax ak li ñuy wax attafaulu bil musaabi xañ na bi alquran ñëwee ko ñenn ñi def waaye loolu itam baaxul ak li ñuy wax quran noonu yooyu yëpp xeetu kahaana la yooyu yëpp xeet dans la ilmil xaybi la yooyu yëpp dara baaxu ci waaw loolu bokkul ak istixaara mi nga xam ne jébbal sa bopp sama borom la pour mu tànnal la li gën bokkul bokkul dégg wal fa bokk rek séddale tegoo bant bi nga xam ne day indi déggu ñi si xaalal bi ko dégg ndax loolu lay sëriñ bi soxla loolu moo tax dégg ah des fois ne ak i bant na demoon hmm. hmm. hmm. mi nga xam ne. koo moom bariwul xëyri mooy ndawal hiw. mooy fonk gan nga gu rafet. dégg dara de ko tawil tawil bu rafet. yonent bi ku bëggoon loolu la. mu ne bi ma àggee marwa daal natt ne mu ngi fi. falam asal dañu ma ansuduhu di ko sakku. fil mahafili ci ndaje yi wa inda talaqil xawafili ak fata ci way tukki yi ñaari fu mbooloo dem rek ma dem fa de ko fa dak soo amee koma buy dikki may dajeeg ñoom ba xam mu ngi cee moom fala hajir den may fekk moo beran aje xamle xanu ci moom waaye ku mu wax dara ci moom daal mënuma koo gis wala ara den may gis la wa ñaal ko asaran jeexit mm-hmm. wala xesiran du càggeen pënd mm-hmm. benn mandarga itam mm-hmm. bu ma yaakaar ne jege si na kooku hatta xalaba banot aliya su naagu atama xa xemem dégg nga waaw waaw maa moom ba nga xam ne yaakaar ja moom mu te jàpp muy néew doole atamilu yaakaar wan xamaa te mu daanu yaakaaroon naa dajeeg moom ndax mbir ya defoon ci njëlbeen waaye dem naa ba yaakaar ji di yàkkeeku fa inni man nag e la zaata yow min ci jëmmi bis bi hadrati wali marwin marwa ma nekk ci barabu wali marwa mooy senaatekat bi e wa kaanate nekkoon na moom wali ji mi man di ku xam ne jamaa boole na al fadla ngëneel wa ak koom xam naa waa marwa doy nañu waar waaye seen waale ji moom ku baax baax hmm. benn ma nekk foofu istimbette hmm. rek talaxas fenk na abu seydin abu seydin hmm. foofu rek abu seydin hasbi fii xalaqi malla mim laaxin nekk ci yére yu ràppi koo ñàkk ay sagar la sol comme nit ko amu dara fii xalaqi mim laaxin nekk ci yére yu ràppi ku ñàkk wa xuluqi mallaaxin ak jikko yi dago haakoon melokaanu ku bëgg koo jox dara laa mm. fa hayyaa mu nayu mm. mu nayoo mm. tahiyatal muhtaaj nayoo aji haajo isa laqiya bu dajeexee faaya tegu ci alwaaliya kii da koo bàyyi fa hayyaa mu nayu alwaaliya waaliji tahiyatal muhtaaj nayoo aji haajo isa laqiya bu dajee bu dajeexee rabbat taaji borom mbaxanaam wurus mu nuyoo ko nuyu hin wi nga xam ne ci haada badolo bu dajee ak buur e moom la koy nuyu summa qaala topp mu wax lahu mu ne ko waale ji in lam xamal wuqiita yal na fegalees la asamma ŋàññi wa kufiita te yal na fegalees la ba tey alam ma njàqare xam naa bala maa wax sax dama la ñaanal der bu rafet ak xel mu dal doom bi waaye man bala maa wax nag xam naa danga la ñaanal der bu rafet yàlla bu la kenn ngañ ji mm. danga la ñaanal xel mu dal itam yàlla bul gis ci rang yëpp bi dara lu la jaax mm. sellu bu baax a baax sellu bu baax a baax waaw bi mm. leen yàlla tegee foofu lañ tegee ñi leen xam xam na ah, xam nañ fi ñu leen a jaar xam nañ fi ñu bu xiite yàlla na fegalees la adam ma ngañ ñi wa ku fiita te fegalees alhamma njàqare xamal ne an na man naka koo xam ne moo di xaat xajees na bii ci moom alhamaalu liggéey yi mooy palte yi foole xaat xajees bii ci alhamaalu yaakaar yi dama bëgg nga xam ne loxo bu ca tëq bu ca dara tëqee rek dana am ñu ko bëgg a mar waaw dama bëgg nga xam ne loxo su fekkee dara tëq na ci rek xamal baax na dana am ñu bëgg a ñëw lu bëgg a ñëw marti ko yàlla dara rek ñaar dana la boole ak laajkat daraja bii nga xam salaw xen la àlla waawa fa murabitun wa seyxu wabnahuma asmau taklifin ala al insani naan diw sàngam moom marabu la murabit la diw sàngam seyxu la mu ne diw sàngam ibnul murabiti la mm. diw sàngam ibnu mu mm. ne buy turi tiranga it mm. ay sonna leen nga ci bi tur yoo ànd ak hen lañ ah fa murabitun wa seyxu abnahuma asmaau taklifin ala al insani ala al insani ah dëgg de muy lii am na man naka koo xam ne xooli xaat aje xoosi xaat ajees na bii coom alaamaalu liggéey yi mm. koo xam ne xam ngay garaat mm. yooyu doxal ci diggante nit ñi xam sañ-sañ mm. loolu ku ko mel ku ne ba dara da la dikkal xooli xaat ajees bii coom alaamaalu mébadi yàlla dana la booleeg ñoo xam ne buñ soxlaa liñ jàpp mooy soxla bi ci yow la war a fajoo wa man képp koo xam ne rufi'at yëkkateef na hmm. lahoo ñaal ko ak darajaat daraja yi hmm. rufi'at yëkkateef ilay jëm ci moom hmm. alxaajaatu xaajo yi yàlla bu la joxee daraja ba nit ñi gëm ne du du la seen morom dañoo ne li leen te yaa ko man su boobaa nag il faut la taw a soxla yàlla bu la joxee daraja ba nit ñi ne yow du la seen morom dañoo jàpp ne li leen la moo tax mbir la ànd wa man rufiat ku yëkkateef na mm. la woo ñaar ko darajaat daraja yi mm. rufiat yëkkateef ilay jëm ci moom mm. alxaajaatu xaaja yi mooy ànd waan na saayada ak naka ku texe man mooy koo xam ne ida qadara bu manee wa waataawu te dëppoog mu alqadaru dogal addaa mu joxe sakkaatan niami asakaay xéewal kama yu addi ki muy joxe sakkaatan naami asakaay jurika ki am sens nag mm. mooy koo xam ne su ko man man dikkalee mm. man man ba buy gaaw buy gàtt yépp daal mm. moom dana ca liggéey lu ko rafetal dana ca liggéey lu xamee tiyaabo man man bi man mënu xalal la man mënu daraja la ko mooy ki am sens waaye ki ñàkk sens mooy ki am man man de ko tëbantoo ba man man ba jeex mu dellu fa mu nekkoon nekk ba dolo te man man bi liggéeyu ci dara waar na saa daal naka ku texe. Mm-hmm. E, man mooy ku xam ne ida qadara su ma ne. Mm-hmm. waa taxaw te dëpp mu alqadaru dogal. Mm-hmm. addaa mu joxe zakatan niami. asakaay xewali. kama yu addi ni ki muy joxe. zakatan naami asakaay juri kër yi. waltasama te mu warlul. li ahlil hurami ñaxal borom xorma maa li nga xam ne. yultasamu def na ko warlul. lil ahli ñaxal ñoñ wal xarami ak njaboot yi mm. te itam mu xam bu baax ne ñi ko topp ni ci gannaawam yépp mm. ci njabootam lañ bokk mm. kenn ku ne mu bàyyi xel doxal la ko war ca moom nga xamee ne ca biir këram kenn ku nekk la ko war ca biir kër ga war na ko doxal njaboot ak biti kenn ku nekk mbootaay ak biti gim laaj dañ ko war a boot nag dañ doon nga waa ji bindkat la jàmbaar <laughs> waltasama te mu warlul li ahlil xurami ñaxal borom xorma yi mm. maa li nga xam ne yul tasamu def na ko warlul mm. lil ahli ñaxal ñooñ wal xarami ak njaboot mm. waqad asbahta xëy nga tey mu jinga bi hamdillah amida misri ka de sangab sa dëkk tey nag ci mbaax ak yàlla kilifteefu dëkk bi ci sa loxo la waqad asbahta xëy nga bi hamdillah hamida métrika de sangab sa dëkk bi kanum waaw waaw waaye maa da Afrika tey kenul sa jamono tey yow yaa tax dundu neex nit mu def kon yaa yor kaaraange gi tus jaa def na mang arrakaibu gawari ila haramika sa hurum ñëpp ngi la soxla xenu si ci yow koo xoy it mu xoy si la mm. tax na bu nekk ñu ngi xenu ci sa barab boo mm. turjaa def na yaakaar mm. arraxa ibu xemem téefi min karamika ci sa mbaax jébbal la jébbal baatu dëkk bi selon ku baax a la jébbal baatu dëkk bi jox ji yëpp yëpp mel ni sa waaw moo fi de sa déret moo fi de firiwut ne nit ñi yow lañ gën a bëgg ci seen bopp mm. dafa doon ne liñ yaakaar mm. njëriñ liñ bëgg seen bopp mm. dañ ko yaakaar ci buñ la fi tegee rek sëñ ah donc gi nga doon tey kilifteefu dëkk bi nekk gi nga nekk gi mu nekk ci sa loxo xam ne sa waaw mooy waaw sa déedéet mooy déedéet nit ñi doole jooju ñu ne yow da nga leen gënal seen bopp déedéet waaye dafa am luñ bëgg ci te de ko xaaree ci doole jooju ñu jox mm. kon seen ndaw nga rek dëgg-dëgg mm. wa turjaa def na yaakaar raxaay bu xamamteef yi mm. min ci sag tedd wa tunsalu def na wàcce almatalibu càkkuteef yi bi saaxatika ci sa dingre lépp lu la ci société bi yow lañ koy indi ki nga xam ne am daraja bu mu bëgg tem jëfe ko yow la koy wàllee ki am koom yow la koy wàllee ki am kum ragal mu sonnal ko yow la koy wal walla xeral lépp yow la wa tunsalu def na wàcce a raxatu noflaay min raxati ka ci sa tënk wa kana mos la dañ fadulaay nga neen lu yàlla aziman daa ji màgg alayka ci yow wa isaanu wa mos lañ rafetalam amiman daa ji mat la day ka fi yow ni dégg nga mele waaw ñu jàng loolu léegi wax na ko ne ko sa hen palaas bi nga tegee hen laa àndal mm. léegi nag moom kim do la koy waxal ndax mu xam li ko wax yoon mu ko mm. yàlla baaxee na la de mm. su ma inni topp man mii di wax ak yow fekkoon ak a góor la boo xam ne tariba ñàkk na mu bandal isra bi ci gannaaw dajale halal man mii de wax ak yow nag mag laa te jaaroon naa ci koom man ci lu ne def ci lu ne doxadik jamono sopp maa toogadik jamono doxam taxamatuma dara ma inni taf moom seexun góor laa tariba goog ñàkk na mu bandal isra bi ci gannaaw dajale alal waxaa dima te mu ñàkk aliam saaba ndimbal xina saabu waxtu wam béjjaawee dem naa ba béjjaaw te aw mu ku may dimbale dina ko baax a baax wala aliam saaba dajal naa tàngo alal la ci jiblu rek xasattu ka jiblu naa la min mahallatin tukkee ji barab naasihatin buraaji sori mm. waxaalatin ak melo raasihatin <coughs> buraaji diis mm. ku sori laa baxoo mm. te itam melokaan bu doy waar ci laa toll tolluwaay bu doy waar ci laa toll amulu dana yaakaar min baxrika ci sa du faatan ak jeñ li ma bëgg nag du dara ci li nga defal nit ñi dafa mel ni benn jañin la rek mm. ci géej ku ko bëgg lu yomb la mm. wadanaa yaakaar mm. min jaahika ci sa daraja rifaatun ak yëkkateku yaakaar naa ne daal luy dox suma diggante gus moom da nga ma ci taxawu ci wàllu koom ci wàllu daraja du dara ci ni nga toll parce du itam ci li nga am wa tamilu yaakaar nag afdal wasaili saili hmm. moo gën ci jottaleku waayu jottaleku waayu aji laaj hmm. boo xasee ba sa nit ki ci dafa laaj hmm. su nga am yaakaar ci moom mooy gën wa naili naili ak may aji maye suñ la boolee laaj ka du xas ci yow loo ko mën a defal lu mooy jox ko lam lay laaj defal ko fu la gën ci moom wa tamilu yaakaar afdal wasaili saili mm-hmm. moo gën ci jottaleek waayu aji laaj mm-hmm. wa naili mm-hmm. ak may aji maye faaw jib na nga waral lii ñi halma maa li nga xam ne yajibu dana mu war alayka ci yow ku ni yow li ko war ci ñu néew doole ñi bëgg naa nga séddama ci cër waasin te na nga rafetal kama ahsana ni ki rafetale allahu yàlla ilayka jëm ci yow yàlla baaxee na la lim la baaxee a naa nga cërale ma ci daal waaw waral li ñaal ma maa li nga xam ne jib dana mu war alayka ci yow waxsin te na nga rafetal ni ki rafetale allahu yàlla ilayka jëm ci yow teg daara ji rek yónni rek wa iyaaka maa ngi lay wattandekuloo antal wii ba nga leemat xesaaraka say faas xamman ci ki nga xam idaaraka nemmeeku na la gan goo dikk nga dummóoyu ko ndeg ragal a sonn ci moom loolu bu ko nangu loolu du yëfi sang wa iyaaka maa lay wattandekuloo antal wii ba nga isaaraka sayfaas xamman ci koo xam isaaraka nemmeeku na iftaala min a siyaarati taw iftaal ci gannaaw say dañ ko soppi daal loolu moo ci nekk rek waaw koo ñëw ndég nga dumayu ko loolu bu waa ma te mu jublu daaraka sa kër aw taq bi da walla ngay jàpp raxaka sa tënk xamman ci koo xam ne imtaaxaka mayu na la wamtaara te mu mayu mooy mu sàkku mm. sama xasa sa tab mm. wala koo xam ne ku xam mm. ak ku xamut su nit ñi bëree moom daal yàlla xiir na ko ci mu laaj la ko boo ko mën a jëriñ bañ koo jëriñ aw taqabida wala ngay jàpp raxaka sa tënk am ci koo xam ne imtaaxaka mayu na la mooy sàkku na sa may wamtaara te musa ko xontu mm. samaha kasata mm. fa wallahi giñ naa ci yàlla mm. maa majada teddut man jamada ku wayna a dëhër këng boole ko nit nawla kenn mënu ko am a maa majada teddul man koo xam ne jamada wayna a dëhër këng boole ko nit ñi dala tagg loolu kenn mënu ko am wala rasada jubul man koo xam ne hasada dajale na mm. dajale halal de xool rek wutu mm. la ci tiyaabo mm. sàmm la ci sa der du xam nu ñu xamee halal loolu ku ñor du ko def rus du mooy ñor dégg nga ba nekk allah bii bu aji xelu man mooy ko xam ne isa wajada bu xamee jaada mu tabe wéy mbadaa bu tàmbalee bi ha idatin ci njëriñ ha da mu delluwaat boo defalee ne tey gis na dem nga loo rafet ah bu dem jotaatee nga defaat rek hmm. wal karimu karim hmm. mooy ku tab gërme dëgg man mooy koo xam ne isa tuuhiba bu ma yow feeko mooy bu ñu ko ñaanee asahaba wurus kon it yahab du mu wek haaba yahabu ay yahaba ba mu ma yahab ko wahaba yahabu ñaari baari bokkuñu mu ne gërme dëgg xalal jum mën a dara mm-hmm. bi ku gënal mm-hmm. soo ko laaj ka laajee mm-hmm. dana ko ko jox wal karimu karim man mooy koo xam ne isa tuuhi ba bu mayoo fee ko mooy bu ñu ko ñaanee azahaba wurus xonit lam yahab du mu wekk ay bu mu mayaat ko li bu seydin wax su ma am ka topp mu jàpp mu noppi nag yar xubu de fuuglu ugla xar fi meññatam jëmbatam mu ngi seet gannaaw wax na lii mm. luy topp ci wax gi mm. waya sudu muy fuglu ba tey mm. madiya bata nafsi tey ak bakkanam su nekkee li mooy déglu mooy am lii mu génne bi xol bu set waaxa ba dal de sopp alwaaliya waali ji ay yaalama ba mu xamat ne xal nut fatuwoo ndax ndoxam mu sell mi sama du ndox mu tuuti la mm. am li qarihatihi wala ñaal na kalam mm. ma da dun tëb mm. waali ji naa bëgg a xam ndax kii daf di wax kat wala dafa nekk adib kii li mu wax ndax lu mu def pexe la rek waajal ko ba bu ñëwee rek wax ko ci baax ñu ne waajaa ngi la wala da de borom manoore bu xam ne nekkul ne wax kat rek la waaye adib dëgg la tey di kenn nii waaye nag ku ko waaye beneen yoon mën na dikkee ne ne mm. loolu la waa ji bëgg a xam mm. faatraqa mu sanaagal mu dal di sëgg mm. yurew wii de xilaat fistirai zandihi ci taxal daju béyam wastisfa firindihi ak settantal gàttam muy xilaat nu mu koy nattoo ba xam ndax kii dafa nekk borom xam-xam dëgg adib dëgg wala dafa doon waxkat bu préparé lu mu ko engagé am de waltabasa daldi lënt ala abi saydin ci abi saydin sirru samsatihi mbootam noppig wali ji wayir jaayi silatihi ak yéexee mayam abu saydin nag xam na yéex a tontu gi te xamul li tax nag xaw a tàngal xol bi nag ma ne faltabasa daldi lënt waltabasa daldi lënt ala abi saydin siru samtatihi mbootam noppi waay waali ji mm. tekkaaral ji te xamul li tax mm. wayir silati ak yéexee mayam mm. fa tawaxaram mu daal di tàkk daaji mer mu mer lool waam sada mu sadd muxtadiban daaji juri daaji dagg ci sàlli bu wéy rek dégg nga way xam ne xiraat mu ngi naan laa xiraat na abayta laana saa adabin li an bada xaraqa sirbali subruta wala todix li axi tamili hurmatahu akana za lasanin am kana sikkita wanfa bi orfika man wafaka muxtabitan wanas bi xawsika man alfayta man kuuta fa xayru maalil fata maalun asaada lahu sigran tanaqalahu rubbanu aw siita wama halal mustari hamdan bi mawhibatin rabman walaw kana ma asahu yaquta lawlal muru'atu daqal honsru han fatinin idas ra'a ba isa ma jawasal quta lakinnahu libtina'il majdi jadda wa min hubbi samahi sana nahwal alalita wama tanassaqa nasara sugri su karamin illa wa asra bi nasrin miski maktuta walhamdu wal buxlu hmm. lam yuqda ijtimaahumaa hmm. hatta laqad qila saadaban wa sahuuta hmm. wa samhu fi nnaasi mahbubun xalaiquhu wal jaamidul kaffi ma yanfakku mamquuta walisahihi ala amwalihi ilalun yusinahu abadan damman wa tabkiit wa tabkiita fajud bima jamaat kafaaka min nasabin hatta yura mujtadijan wa kama fuuta wa khud nasibaka minhu qabla rayaatin min azamani turika alhooda manhuuta fa dahru ankadu min an tastamirra bihi halun takarrahta tilka alhaala amsita ewan jangalo la taqiranna bal xeeb abayta bañ nga allah na def luñ la rëbbi xam naa doo def nag luñ lay muuloo waaye balde xeeb saa adabin borom adab li an bada ngërëg feeñam xalaqa sirbaali daaji ràpp ci mbubu suurutan daaji ñàkk nit mel na mu war a mel xam la mu war a xam nga ne ko xeebee ñàkk buy gisee yére yoo rafet loolu bu ko def li am ba daan ngërëg feeñam xalaqa sirbaali daaji ràpp daaji ñàkk wala soo dee bal de sànq mm. li axi tamili ñaal borom yaakaar mm. xormatawoo xormaam mm. te itam nit dafa war a bàyyi xel yi bindee fi ci moom su fekkee yaakaar xenu na ci yow ngel la bal de tas yi kala yaakaar ak kaanam moo xam nekk na saa la sa nin de borom ak mën wax am kaana wala nekk na sikkiitan de noppi aagoon gannaaw daal moom yow yàlla xiir na daal mm. def na daal yaakaaram moyenu ci yow mm. na nga fexe dëggal yaakaaram mm. wan fa na ngay bondil bi xor fi ka ci sa xeñ gu neex bi xor fi ka ci sa njekk wan fa na ngay may bi xor fi ka ci sa njekk man koo xam ne waa faa ka dikkal na mu la muxtabitan daaji xaajo koo dikk ci yow ndég xaajo loo ko mën a jëriñ jëriñ ko ko mm-hmm. loo mën ci aajo ba nanga ko def mm-hmm. na nga yëkkatee mm-hmm. bi xaw si ka ci sa xettali man koo xam ne alfayta fekk nga ko man ko tan muy ko ñu jam koo fekk mu tollu ndigante aajo dimbale loo mën ci dimbale ko nanga ko def na nga yëkkatee bi xaw si ka ci sa xettali man ki nga xam ne alfayta fekk ko man ko tan muy ko jam fa xayru maalil fata gën ci xaalale waay maalun halal lay do ju xam ne asaada yëkkati na lëwa ñaal ko sigaran turu xam ne tanaqalahoo toxal toxalan na ko arrubaanu setti si aw siitan walla bayre sigaran aw siitan halal jëjë gën mooy ja borom jëlee der bu rafet dégg nga halal moo wala sang der waaye der nag warul tëdd ci kaw alal de ti de ti nit loolu bu baax a baax dafa bokk ci njëriñi ala hibsul muruaat wattu sa mbañ ruus ci la bokk ñëw ne jaadis mu ne nit lépp lu mu joxe nde fekkee ko deram loolu dañ ko dañ koo deral muy téye boy sarax lépp lu mu ñàkk nde deram lay rafetal loolu dañ ko deral muy téye boy sarax jëw ne jaadis dégg nga wa xayru maalil fata gën ci xaalale maalun halal laydo ju mm. xam ne asaada yëkkatina yëkkatil na mm. lawa ñaal ko sigran tur wu xam ne mm. tanaqala woo toxal toxal am na ko arul baatu sensi aw si tan walla bayre muy tur wu rafet wa maa alal mustari warul aji jandee xam dan cant bi ma hibatin ci maye xam nun tarta mu ne yëkkati dara def ko fu rafet nga def ko fa jëlee ca der bu rafet ak jëmt mooy loolu perte ne wu ji de ñàkk lii xam lii la rek alal nga ñàkk te nga am ci li alal di jëriñ la bokk kon perte nekku ci ñàkk lii xam lii la rek alal nga ñàkk te nga am ci li alal di jëriñ la bokk waaw ba ma alal mustari warul aji jandee xam dan jant bi ma fi ba din ci maye xam nun na ko wala kaana doon nekk na maa li nga xam ne xataaw joxe na mu ko yàqoo tan te wurus du yàqoo ak façon alal boo mën a jox lu bëri ci nit ñi suñu rusu doon xem ci seen bopp lan duñu mos a sonn mukk waaw lu bëri ci nit ñi waaw suñu rusu doon de xem ci seen dara kon duñ mos a ñàkk dara ndax li ñu am xattan na leen jom konoon daaka xat almasru ngant an fatinin ci aji xelu isara abu buyu xooloo ila ma jëm ci lu ne jaawasa jéggi na alxóota dund kon ko am loo mën da lekk yow kenn rek mën a mën a farlan ne loo su du doon jom ru ruuf sa njëriñ xem ci kenn ku ne boppam rek kon ko am loo mën a nga toog ko am loo mën da jaw lakin li fi nekk nag moom kooku di borom moom borom xel mi majdi ngir fàggu tedd jadda farlu na wasanaa te mu leer ndax wala la wàllu kowe lii dan doq min hubbi samaay ngir sopp tam waaye nag gannaaw borom muroo ak nga nag te lu bu baax a baax dafay waral man ngaa am loo bu doon sa jëmm rek hëpp nga di góorgóorlu seetlu bu baax a baax seetlu bu moo lay xen ci lu rafet def bu dikkee hmm. doon na ci keneen la hmm. nga def ca lan rek hmm. lakin uh, li fi nekk moom bu ku xel mu ku xelu kooku li fi naayil ngir jéem a tabax tedd nga jadda farloon wamin hubbi samaayi ngir soppata sanaa leer na lii tam doq na wala la ko wàllu wa maata nafsaqa sorox nde koowut nasara sugri gàttak cant su karamin borom ak tab illa wa asra dare bu xeeb na mu bi nasrin misk ci gàttak misk mabtuudan bi muy lu ñu fët misk boobu ñi fët ba mu di sungub xeñ gi tasaaroo ak lu muy neex neex bu la xeñ salaaw li ko mooy der bu rafet boo amee jëf ju baax ko dàq wal hamdu cant wal buxdu ak nay lam yuqada dogaleeful itimaamu maase nag daje de waaw nit nag dala sant ak gërëm te defaloo leen dara loolu kenn mënu ko am kenn mënu ko am ah ak yeesu min ay yamdahoo rajulan min xayri ay yajidoo asar ihsani wal hamdu cant wal buxdu ak nay ah lam yuqada dogalee pour ijtimaahuma seen ak daje hatta laqad qiila ba jottof na saa kii dabban mu di mbët wasañu jottu këre hootan muy jëm kii ci jéeri ji lay dëkk kii ci ndox ma lay dëkk suñ daje xeere xam na ci ko amul lu ko neexal ne ki defaloo ko dara muy la sant santul la ji bànneex rek benn bëgg mucc rek ku mucc rek moo koy wala dégg wasangu ci nit ñi maa boobun ku ñu soppala xalaayi xoo ay jikkoom nit ñi képp ku ñoom rek dañ la ngëp bu dul yow it dañ de seen bopp rek waaye wal jaamilul këf bi aji dëgër teen la kooku mayeen ko ku dumu deñ mam ku ñu jéppi waaye ku leen du defal dara heure bu ne sa wax jëmale seen wax jëmale ci yow mooy amoo njëriñ rek joro ak yéen ñi ku leen du defal dara waaw seen wax seen wax wax ci yow mooy amoo njëriñ rek joro ak yéen rek wal jaamidul këf bi aji dëgër tenq mayan fa ku du mu dañ man kootan de ku ñu jiit wali sahihi ñaal na aji ala amwalihi ci halalam xelalun ay xel la mm. mooy ay mbir mm. yoo xam ne yoo si anahoo danañu ko yaatalal mm. abadan faw samman ci ŋàññi samman ŋàññi watak kiitan ak yette halal boo ko xamee la jarafeta def dikk nga bañ koo def ak loo mën a layee muy ngànt lu jural jar bu ñaaw la jural rek ñi la waroon a naw wala sahihi ñaal na aji nay hmm. ala amwaalihi ci halalam halalun ay hella yoo xam ne yoo sax ne woo danañu ko yaatalal hmm. abadan faawu tam man ŋàññi hmm. wata kiitan ak yedde fa jun na nga bi maa ci li nga xam ne jamaa dajale na ko kafaaka sa ñaari ten xamin nasobin ci halal nasobin bu daa lay firi li nga dajale ci halal dañu def la jarafeta def xata ba gisee mujtadi jël waa ka aji sàkku sama yi aji mayu sama yi ma boo doon muy ku ñu ba nga xam ne ku di soxla dafay sant ba du xamante lu muy wax waqus na nga jàpp sa cër min hu ci li dajale ci halal qabla rayaatin ci njëkk aji tiille mina samaani ci jamono turika lo joj dana mu la wan almoada bant mooy njëkk a xew ay aji tiit la mooy xew xew buy tiit de su dee ko dana mu la wan almaada bant man huwa tan muy lu ñu xett li ngay dajale dañ ci wut tiyaabu yàlla topp ci sa toppatoo ci sa bopp ci nekk ak tey bala jamono yi dikk ak mbiram waxut na nga jàpp nasiiba ka saala sa sa cër si loolu nga dajale qabla rayaatin ca njëkk aji tiitle mina samaani jama mooy xew-xew bu tiitle am nañu koy firi be jaw kiri ko dana mu la wan alama da bante man wara nuuri ñett fa daaru jamono an ka du mu gën a xat min an tastamirra ci bu saxat bii jamal lenn bés mu ne àddina amul sérieux lenn dafa nekk rek du jóge bu neexee mm. yàgg yàgg mu naqadi rek mm. bu naqadee mm. yàgg yàgg mu neex rek noonu la demee rek de selam bu baax a baax ala ah, fal ayaamu hubla mu ne jàmbat jaru ko fane àddina yi dañoo mel ni jigéen juróom selam bu ah, doom mu neex la jur doom mu ñàkk moom ma xam bu noona bu la juralee doom mu neex la jubluwul neexal la moom ma xam bu noona bu la juralee doom doom ji neexul la jubluwul naqadal la waaye xam bu mu ànd ak loolu àddina yi nag noonu la tey mu neex ëllëg mu bett bu neexee du dala neexal hmm. déedéet bindiree nu la wax rek hmm. bu naqadee du dala naqadal rek hmm. déedéet da ngaa dajeeg di gis lim lamboo rek loolu rek la laa wata jàmbat jaru ko ah laa tas ku fal ayaamu hub laa rubbama jaat ka rub ade rubbama jaat ka min ojobatin bi janini laa tas ku fal ayaamu hub laa rubbama jaat ka min rubba rubbama jaat ka min ojobatin bi janini wa kada tasarifu samani masaqatun firahatin wa xusonatun fii liini noonu mm-hmm. rek tey mu ne mu naqari mm-hmm. madaa yunusu mm-hmm. binara'i mujarradan fi dilli nabitatin min al yaqtini may seetal yunus ca biir jën wa ak yunus ca ron xob yaqtini wa ca toppaat métti métti lay wéy gannaaw mu neex torop ah gannaaw ñu bëree ko gëm loolu mu dund ak ñoom dund bu neex a neex madaa yunusu fi naraayi mujarradan fi dilli naabitatin minal yaqatini xam nga biiru jën wi dafa wanna mu ne laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu mina zaalimiin jën wi gëpp ko ci tefes gi fekk booba tàmbooru jën wi su mu ne der bi yëpp dafa mel ni kuy ko génnee ci ñu rëbb bu tàng ñu rëbb yu baax suñ génnee noonu la mel mm-hmm. su ko defee mu tëdd feebar mm-hmm. sama borom wattu gi mu koy wattu bañ rab yi laal ko mu mm-hmm. saxal garabu yàqatin bi feegam yàqatin nee nañ mooy yomb yi daal gi dafa la wóor ko muur ko xob yi daal daal la wóor ba loolu dañ mu jóg dellu ci ay bokk moom moo tax ñu gëm ko trop. gëm ko lool gëm ko lool mu ànd yoo ànd bu neex a neex. waaye métti métti la. waaye neex na topp na ci. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا ومتعناهم إلى حين من الذين لا تسقف الأيام هبلا ربما jaatka min ujubatin bi jamini wa kada tasarifu samani masaqatun fi rahatin wa qusunatun fi nini ma daa yunusu bil ara'i mujarradan fi zilli nabitatin min al yaqtin yaakaar naa noonu la la demee dégg nga dégg nga maanaam fa dara jamono am kat moo gën a xat min an tastamira ci bu saxat bi jëm xaalun menn mbir jamono amul sérieux lenn nekk rek te bee jot takarata moo xam sim nga tilkal xaala moomale mbir moo xam mu la métti la métti saxu am siita wala song wala neex la neex saxu ne mu xam bi daanaka ji am dañu wàññee bindi yi beneen rek dañ koy fa qaala lahul waali waali ji ne ko tallaahi gi naa ci yàlla laqad ahsan ta rafetal nga de ah yow kay góor nga fa ayu waladi rajuli ana jan doomi waaye la ante ana ku kuy sa baay nag fa nadara mu xool ilayhi jëm ci waali ji ana ordin ci rob mu rog waali ji mu abu zeydin wa an sada mu sadd wa watte moom muxdin aji du muy yulag bu ko defee nag mu dugg mooy da xool fële de wéy naan laa tas alil mar aman aboohu warus xilaalahoo summa silu aw fasrini fa ma yusinu sulaafa hiina hala madaaquha kawnuha abnatal hisrini laa tas al balde lak al mar waaye man ana kan may bàyyi ba affaire kuy sa bàyyi kuy sa maam hmm. ku jarul de dugal ci daje koo xam hmm. jaru ko warus nemmeekul warus settantalal waaw warus settantalal bokku dal surde waaw warus nanga settantal rek xilaat la ko ay jikko set ko rek dégg nga warus nanga nattu xilaat la ko ay jikkoom rek su ma silu topp nga jokk bu jaree ngëb nga ngëb ku ko mën jur rek ku jar ngëb aw fasrim walla nga dabu ko mm. walla bu jarul ngëb nga bap boo mën a ñu jarul ngëbal loolu mooy mbir mm. waaye ji naan ji ni naan ko foo bokk mm. ba ma yéeseenu duy ñaawal asula fa sàngara ina hala waxtu wa neexee masa fa mosu waayam du ko de ñaawal kaw nu haa nekkam imnatal hisri mi da doomi singi sàngara buñ ko deferee bam neex garab gam baxee ko lëm dut garab bu ñooy tàgg hmm. du ko doon sàngara dañoo tàggat hmm. xelu bu baax a baax hmm. nit itam bu ma bu fekkee ne du ne ay maamam dañoo siiw fu ne ci àddina waaye góorgóorlu na ba tekki salaw du ko tere du ko tekke xaala xaaris nee na fa qarrabahu jege ñal abu zeydin alwaali waali ji li bayaanihi ngir biralam ni mën a waxee nii sax waa di ji teg ko ci peggam hmm. na ko jege si jege si <coughs> ataa xalloo bu mu wàcce ko hmm. maqaadal xaatini ci toogu waay ngaamaan ci peggam la ko toogal dara jaarul seen diggante hmm. xam nga ngaamaan bi ak njulli bi bu koy xarfal sax du jaar seen diggante mais kenn jaarul seen diggante su ma farada topp mu dogalal lawo ñaal ko min ci tawe mayam wala ci mayam say bu cim say bu cosaan cosaan li ndàmb la ci ndàmbi mayam maa loo xam ne aadana xam le na bi tuuli layli yi ci gudd ak mbiñam lafitam wa xifari layli yi ak gàtt ak ay mu ne mu jox ko loo xam ne loxoom jotee na ca gannaaw guddi mu gàttee na ca xam nga bu sa xel dalee guddi da nga koy mën a nelaw ba di gudd gudd ak guddi ak bu sa xel dalul bu may mën a yàggaay yu guddi waaye bu sa xel dalee nag ngay nelaw guddi ba mu mm. jeex kenn doo ci yëgante yàlla e yàggaay yu guddi moo tax bu ay guddi mu gudda tudde waaw su ma farada topp mu dogalal la hoo ñaal ko min suyoo bi nay lihi ci ndam mi mayam maa lu ne aadana le na bi tooli day lihi ci gudd ak mi jëm mooy lafitam waxi sori lay lihi ak gàtt guddi fa na aada dal de buur abu seydin xanu walit waali ji wérut nin ci lafitu mbuub mooy jiba mal aana juraaji fees wa qalbin ak xol jot laana juraaji fees xam nga seen kontaan trop ci mu fees poos feesee del la wa tabitu ma topp ko haasiyan daaji topp haasu hoo jeego ma topp ko rek fu mu teg tànkam ma teg ma tànkam wa te daaji xeñtu xad wo hoo jeego hatta isa xaraje ba mu génn min baabihi tukkee ci buntu waali wa fasala te mu faj ci han xaabi yi waris gola waali hmm. ma topp ko bañ génn li hetta waali kultu hmm. wax la wa ko ma ne ko ta ndokkaleef na la hmm. bi ma ci li nga xam ne ta joxeef na la ko a ah, tey maa ngi ci tiraanga ji waa ji wa mu lii te yàlla na la bi ma ci li nga xam oli ta joxeef na la ko waaye lii daal moom loo ci def rek yàlla nañ ci am xol bu sedd hunni ta ndokkeeleef na la bi maa li nga xam ne ootii te joxeef na la wa mu yal na bànnee xaleef la bi maa li nga xam ne oolii ta mayeef na abu seydi ne xaaris ne loolu laa ko wax para dal di leer wajoo xar kanamam watala la ate mu mel xat wa waala te mu toflante sukran lillahi ñaal yàlla taala mm. mu ne cël maay di firee ma ka waaye alhamdulillah de war nu mu su ma xatara topp mu bëngeer muy dox mm. ixtiyaalan di ci daagu xaale mm. mu commencé na de dox doxin yëg boppam sax mm. waan sada muy sadd istijaalan ci juri muy wéy lu xam ne bindu ko fenn muy aan man yakun naala bil xamaaqati hadan aw sama qadruhu li tiibil usuli wa bi fadlin tafaqtu bi fuduli wa bi qawlin tafaqtu bi tafaqtu wa bi qawlin tafaqtu bi xuyuli ma yëkkun ku nekk na naa la di xamee xaddan cër bi xamaa kati ci ndox koo de bi fi ñoradi ba tax ñu jox ko ndégi fi ñoradi mi te bu waa jox laam waaye xam lum ñàkk nag ndax lu nit yi gën a maye ñàkk na ko hmm. wala yaxuran ka haddun jarrahu xaraqun fal hmm. xulqu hadmun wa rifqul mar'i bunyaanu hmm. aw sama wala yëkkate ku qadru woo darajaam li tiibit usooli gerte yeeg cosaan yi wala soo amee koo xam ne bu doon jarul dara waaye démb tax na ñuy gunge bu dee loolu de man de fa bi fadli ci sama ngëneel inta badu laa bi fuduli waaye du sumay wax yi neen man de yëfi nite laa am laa def ba xam li nite di jëriñ de mu ne man de yëfi nite laa def ba xam li nite di jëriñ de abi fadli ci sama ngëne nite man laa jëriñ laa bi fuduli waaye du sumay wax yi de ba bi xawli ci sama wax irtabatu laa kowe li mu wane daal moo tax ñu daraja laa bi xuyóoli waaye du ay samay maami kàngam su hmm. ma xaala topp mu ne tansan xalak hmm. li man ñaan na koo xam ne jadaba bee ko xaraam al hmm. adaba hen wul adaba hen wul adaba ku ko sàggane perte nga waxtu ba texe li man ñaan na koo xam ne jadda fallu na fii ci adab wadaa ba tem nangu ja li law summa waddaani topp mu tàggu abu zeydin wa dahaba te waaw daa ni te mu dénk ma allah ba tàkk tàkk